mbokk Sénégal maa ngi santaat yàlla sunu borom waxtu wi daaw maa ngi doon ñaan yàlla mu may ñu ñu fekkee défilé bi ren ngir mën a continuer suñuy liggéey ci wàllu karange réew mi ren nag fête bi dafa tombe ak prestation de serment président la république ci mandat bu bees bi ko réew mi joxaat ñu am fi ay gan yu tedd muy samay nattango yu jógee ci réewu Madagascar nekk suñu ay invité d'honneur muy président Rajoelina muy président Adama Barrow bu gambi di président Weah George Weah bu Libéria ak vice-président ba bu Sierra Leone ñu ñëw bokk ak ñun bés bi di bésu indépendance bi wane dat bi Sénégal moomee boppam kon lii ñu gis tey ci défilé war na mën a dal xel ci ne kaaraange réew mi ah ñi ko war a toppatoo ñu ngi koy toppatoo ci anam yu gën a rafet lépp luy jumtukaay depuis juróomi at ba si juróom-benn at tàmbali nañu programme mooy matériel yi ngeen gis fii ak yu bare bare yoo xam ni wonewuñu ko ndax yegg wala boog lépp mënuñ ko wone ci bésu défilé loolu nag damay waxaat rekk sama détermination ngir yokk kaaraange réew mi ndax ku xam li xew tey ci Afrique rawatina ci Sahel ak li ñu wër xam ni kenn warul nelaw ba ñu dal sa kaw au contraire war nañu tàggat soldats si gendarme police sapeur pompier force paramilitaire may nuyu force paramilitaire yëpp yi fi défilé muy corps administration pénitentiaire muy ñi nga xam ni moom la ñu wax service national de l'hygiène dama fas yéene doolelaat ko ngir mesure yu bees yi ñu bëgg a taxawal ci wàllu cadre de vie muy itam eaux et forêts ak direction des parcs nationaux wala boog douane sénégalaise bi nga xam ni ñooy soldaaru koom-koom bi ak mboolem bien sûr force yu mel nu police nationale nga xam ne guddi ak bëccëg ñooy taxaw di assurer sécurité doomu aadama yi kon damay gërëmaat bu baax njiitu armée bi muy général de corps d'armée Cheikh Gueye ak njiitu gendarmerie nationale muy général de division Cheikh Seck yor gendarmerie nationale ah si seen taxawaay waaye bu ma leen gërëmee ba pare gërëm soldats si yëpp ak gendarme ak sapeur waaye aussi force de police yi ak mbooleem tey ñi fi défilé rawatina xale yu ndaw yi muy civil yi ci école yi ci commune yi ci lépp loo xam ne mooy wane ne réew mi armeem ak nation bi dafa nekk benn kon ñu santaat yàlla bu baax di sant aussi sénégalais yi di leen ndokkale ci bés bi jërë ngeen jëf